asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi ñuy seetaan fii ci Mouride Info ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di ñaanal Cheikh Mountakha Bassir borom bi dëbb ko kàttan wéral ko waaye li yàlla na yàlla wàccee yërmande seen kaw di ñëw ak yéen seen ostaas Serigne Mor Ndiaye fas yéene lee di ànd ak yéen ci waxtaanu Sénégalu démb ak lépp lu ci aju ñu koy amee fii ñu ko bàyyi loo xel xamal doomu aadama faaw muy xam démbam ndax démb mooy tax nga xam sa tey tey dina tax nga xam ne réew mi ñi fi nekkoon ay néegi ngor ay néegi cosaan ay bañkat yu yàgg a joxe seen deret ak seen ngor lépp di bañ ak noteel doon tey réew mi taroon na ba njàppum jàmmeeg lu ne am na fi waaye am na ñeneen ñu fi jiite woon ñoo xam ne warees na ko di xamal ñii fi nekk rawatina ñii jiite réew yi ba ñu xam ne Sénégal réew la mu yàgg di ah, fonk boppam di fonk ay mbokkam waaye nag di bañ li nga xam moom mooy ak noteel ba bakkan yu bëree bëri rot ci ay histoire yu bëree bëri yu wuute ginnaaw bi nga xamee ne nekk nañ ci ay kilifteef yu bëree bëri moom Sénégal ci noonu bi ñu demee ba it nekk seen bopp xëccoo yi bëri woon na ci biir lool lool diggante sëriñ si. ak ceddo yi waaye diggante ceddo yi ak colonialiste yi waaye diggante colonialiste yi ak ni ñu doon wooye ñi nga xam ne ñoom ñooy fetal jihaar yooyu yëpp ay xew-xew la yu bëree bëri kon Sénégal bu ñuy xool dëkk la bu am histoire bu riis boo xam ne daanaka li ñuy jàngale histoire yi jàmbur yi soo ko doon móol boo doon xool Sénégal mën nga cee móol ay téere yu bëree bëri ndax am nañ histoire yu bëree bëree bëri ndax su fekkante ne tey ji da nga koo commencé woon te ku ñu wax eh, Njaajaan Njaay ci jamonoy Mansa Souleymane di boor boo xam te ne moom moo yilifoon Mali ba Sénégal waaye bi yàlla dogalee mu wàcc liggéey réeroo yi seen biir Njaajaan Njaay profité libéré ki nga xam ne mooy Sénégal ci loxoy Mali def fédération Jolof bu ma defee fédération jolof boobu noonu daanaka jolof tey dëkk la waaye démb réew la woon ndax démb jolof yilif na ay dëkk yu baree baree bari niki kajoor niki bawal niki saalum niki lenn ci waalo yooyu yëpp kajoor daf ko kii jolof daf ko yilifoon ñuy joxe ay galak muy ay impôt waaye fédération jolof boobu xew-xew ya ko tas bari na ba ca kam gën a tase dëgg dëgg dëgg kooka ña ngi koy wax Amari Ngoone Sobel waaye lu jiitu Amari Ngoone Sobel moom benn pël bu ñuy wax Koli Tengala Koli Tengala moom nga xam ne moo jógee côté Gambie jaar Jolof dem Fuuta Toor sas fa ngóorug dañànke moom it sonaloon na lool njaajaan njaay ci ay xeex yu bari waaye xeex ba daal la ko gën a tas moom mooy ku ñu wax Koli Tengala kon dañuy taxawlu foofu rek ci beneen numéro ndonga li Mor Ndiaye la wasalaamu ala man tabal huda